ndigalu sëriñ bi matal nañ ko mooy tere bi mu waxoon nañ ko moytu def muy rassemblement daje daje bu bare bi moytu nañ ko mais kamil yi moom jàng nañ ko ba toll na ci limu deux mille deux cent quatre-vingt-onze mais tey si suba am na leneen lu ci dolliku imaam raati bu ndar sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Diallo jéggi na barrière confrérie yi tarixa moytu na ko ndax wàcce na kamil sëriñ Tuubaa tey yi ñu ngi koy gërëm di ko sant au nom du président Ahmed Fall sëñ Ahmed mi ngi gërëm ñëpp di ñaanal sëñ Muntaxa Mbakke mu gën fi yàgg di ñaanal njabootu sëñ ma sëñ sëñ Tuubaa gépp gépp gépp gépp ak suñu imaam ñu ngi koy ñaanal itam sëñ Maam Mor Mbakke allahumma salli ala sayyidina naka ngeen dundee ñaari rakk yi ak coronavirus bi yéen nan ko dundee waaw ni ko dundee mooy lu gouvernement bi wax ministre bi wax nañ sëñ ñun laata sëñ Muntaxa wax nañu ba pare moo tax ñu tekk nii yëpp si suuf ren amul amul julli amul dara kenn def ko fi kaamil rek la ñuy jàng moytu moytu gu daal sëñ bu neen nañ ko def ku nekk takk sa mas loolu daal masal nañ ko sëkk moom kon ñu ngi sant yàlla di julli si nabi Moustapha di gërëm cheikhul xadim di ñaan sunu boroom sëñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi lool te ànd wér kon bërëb bii ñu toog moom lañ daan wooye jàkkay zeng jàkkay zeng nag daf fekkoon mu doonoon jàkk joo xam ni ay zeng moo ko wér wëroon ba ñu jàpp tur woowu naan ko jàkkay Zeng lan moo tax mu am solo ci yoon wi mooy bokk na ci bërëb yi nga xam ni mën nañ jàpp ni Serigne Touba jaaroon na fi ci ndar ci 1895 ba ko tubaab yi téye ndax fa ñu jóge léegi nii mooy laboratoire de sang bu fa musaan jóge di jàll nii di dem si Ahmed Khoury Sène daawoon na toog fii daw na fi julli daw na fi jàppe daawoon na fi ñaan daawoon na fi def ay yi mbiri boppam moom ci boppam nag moo ni woon magi ndar yi ñu fonk bërëb bi ndax sunu borom defal na ko fi tawfiix goo xam ni jar naa fonk waaye ku xam ni sëñ Tuubaa dañu woon ndar ca kanam bu nee sëñ bee wax ñu fonk bërëb bi di ko mën a gëm mag ñi nag ñoo fonk bërëb bi doon ko defar baam lu fi feeñ li fi feeñ nag mooy xéewal gi xam naa duma ma dugg ci détail ndax dafa am jëmm joo xam ni moom la sunu borom dogal mu nekk ci bërëb bi ñu bëkk laay biire ci wàll histoire boobu mu dellusi si mooy la ma leen junjoon rek du wuute mooy place bi sëñ bi moo fi doon jaar ba mu fi jaar ndox mi feeñ na fi sëñ Saaliw jaaroon na fi tànq na ci ndox mi waaye soxna Assa Gawane daawoon na wax ñu may ko si ndox mi ndox mi daal doonoon ndox mu yéeme boo xam ni sëñ bee ñu ko dimbali ci ndar kon damay jox ki nga xam ne moo yore bërëb bi kàddu ki mu dellu siwaat ak ñun ci lépp lu fi taarix ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonentam bu tedd bi dañuy dellu sant Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ndax sant ka war na ku nekk war tamaal bis bi nga xam ni si la lépp taxawe si la yoon islaam juddoo si la islaam amee ndam si la islaam amee sakk mu le septembre tey fii nga xam ni fi la daje te suñu borom boole ñu fi ndax ngir benn jëm mu sëriñ Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul fi nag li nga xam ne maanaam mag ñi wax nañu ko te ñu wax ñoom ñu dégg leenoon fii barabu ziar la woon sëñ bi dafa daan ñëw leen bu daan jógee fii ñuy wax laboratoire fa nga xam ne am na benn commandant moo fa dëkkoon jamono jooju nekk fa sëñ bi am fu mu fa na heure bi nga xam waxtu bi am bu ko daan bu ko daan bàyyi ko muy doxantu ji leen bu daan doxantu nag ba yegg si fii dañ fi fa dañ a julli tàkkusaan dañ fi def ay lawraatam baab diir mu delluwaat wala mu delluwaat fii ñuy wax tey xaar mee nga tey bi mu koy def di ko def di ko def ba ab diir lu mu yëgee ni maanaam mission mi ngi jeex fii ci biir ndar leenoonu mu toog benn bis mu woolu mu nan ko woolu ku fi dëkk bi nu xoolee xoolee dëkkuwaay xawoon na fi jafe loolu waaye bi nu gis nañu góor gi ñuy wax góor gi amaat ba bi ñu ko woolee ni ko sëñ bi de sëñ bi nekk fee moo lay woolu dinaa bi góor gi ñëwee waxtaan noonu ñoom ñaar sëñ bi ni ko foo dëkkee mu ni ko wàllu wee mu ni ko de barab bii de laa doon dénkaane na nga ma ko ormaa la te saytu ko te xam ne suñu borom nangoon na fi samay ñaan bi loolu amee nag mag ñi nga xam ni jot nañ fi dëkk doon ay taalibe bi ñu déggee kàddu googu seen tàmbali jël barab bi ñàkk def ko barabu ziar ñi si gën a ràññee góor gi góor gi eh, góor gi sëñ sëñ sëñ Mor Mamour Mbodj sëñ Saliou Mbodj ak sëñ Faliou Mbodj ñooñu ay ay mbokk nañu ndax sëñ Mamour sëñ Faliou Mbodj ak sëñ Saliou ay mag rakk nañu waaye sëñ Mamour seen jarbaat la woon moom bi mu yëgee barab bi barab bi nag kenn sëñ bi daawoon na fi teg tànkam rek si la bàyyi këram bàyyi léppam dëkk fi def ko këram def ko léppam ku ñëw fi nga koy fekk booy demit fi nga koy bi ñu ko defee ba jëmi jamono mille neuf cent mille neuf cent soixante-cinq leen Sëriñ Saaliwu moom mi nga xam ne daawoon fi woon gëj ndar ñëw na fi doon ziar soxna may Moussa Abdoulaye ndax sëñ kër kër Bamba Soxna fii moom fi la fi lañ ko joxee mu jànge fi tey ba yor franco arabe foofu ci Touba bi mu fi jaar bi mu fi jaaree ba ko seet si ba war a dem kooku Paa ma dikkee waadu toog na ma wax ma ne nettali ma dégg sax sëñ baar Sàmm wax na ma dégg leen ñoom ñaar sax ñoo fi àndoo sëñ mu leen fal lan fa la teen suñ tubaab bi nekk ñu ne ko ah Mbàkke mi ngi ci benn wàll ba ko nan fa yegg leen bi nu ñëwee teeral na warwaayam nee ci kanam def ay jéego dugg si biir def fi ñaari ràkk nu mu jëlee ñaari ràkk ba pare sëñ baara leen sëñ bi am na xasida bu mu ubbi di jàng leen bi muy jàng di jàng ba ab diir leen sëñ bi àndal na fi tàngoor bi nga xam ni maanaam yëre bi mu soloon boo ko wañee dañ siy génne xéwal gu bëri leen bi sëñ bi jógee ni ko sàmm mu ni ko mooy taarix bi si sëñ Baara nettalee ni fi mag ñu doon liggéeye bis pour dindi sàkke def si zinc bi ñu demee ba am mbali mu xaw bëre seen xel dem si tuuri ka wala lakk ka mais sëñ Maam Mor ni leen déedéet dañu ko gas suul ndax fépp sëñ mës a nekk lu fekk na ko fa bàyyi bi ñuy gas nag ba am taxawaayu peel leen loolu gis ndox mi tàmbali di génn dëgg la gaa fii ndox mi solo fi waaye ndox mi feeñi day xaw wax xorom tuuti bi ñu tàmbalee ndox mi di mën a ñëwee am doole léegi bu ñu commencé day doon ndox mu neex lool mu jaaxal leen fu ñu sonde fii day doon ndox mu xaw wex xorom ah seen xel xel dem si li sëñ bi waxoon que ni suñu borom nangu fa ay ñaanam xëy na loolu moo waroon nag sabab bi nga xam ne mooy indi tey teen bii tey te li si gën a yéeme mooy nit tëdd na ba tëdd na ba tëdd na ba 6 heures du matin leena ñu yeeg xamal lay faj mi ngi si Tuubaa ba sa balakoos te dëkk Ndar bi mosu fi ñëw fii la ma yee si 7 matin ni ma leen ko teetal bi nit tawat na Touba ñu xamal ka la lay faj ministère Serigne ba sa barakoos daa fa dem bisu àjjuma daa leen fekk ñuy tëj naan bi jëmu yooju bi ma ñëwee fekk nañu ñuy ñaan tëj ñaan bay bay tëj ñaan bi si la dugg si bi mu dugg si la wax lii nga xam ni moom laa leen wax loolu yëpp day wane ni teen bi teenu Serigne Touba la fa mu daan toog nag di jàpp di yeesu loolu tey moo génnaat di jëriñ doomu aadama yi rek tool yi bu ñu loolu la rek maanaam xéwal ko daan tuur tey moo génnaat di jëriñ doomu aadama yi ndax fu waay nekk tey dana fi ñëw di jóobu ndox mi ndox mi dana jël avion dana àgg fu àggul sax loolu day wane li jaar jaar Serigne Touba at at at maanaam taxawaay bi nga xam ne am na ko si barab bi barab bi nag barabu ñaan la ndax nit nii la fi dëkkee ba màgga fi mu ci tànkam te nii la aussi nit jóge fu sore di def ay jéego def jàg bu tàbb fi nga xam ne loolu kon day wane ni ku suñu borom dimbalewul ak ku sëñ Tuubaa bëggu dimbale doo fi teg sa tànk kooku daal mooy fi nu nekk nii tey sëñ Saliou ne bi mu ñëwee ba ba ba ñu xamal ko barab bi si la wax sëñ Baara ni ko wutal ma satala bi satala bi am na ndox mu sell bu fi nekk bu def foo ko sotti nga lim satala bi léegi mu ko ko duy ko mu duy ko mu fees mu gën a gelwaag naa dem ba ay nu sotti ko fi képp kuy taal bi suuf mu dees nga barkeelu si mu gën a xamal ni pas-pas bu waaye am ba fii lu mu fas suñu borom dañ ko defal ñun nag li ñu yàlla dimbale ñu fi nekk si ñaar rakka yi jamono sëñ Saliou bi ki fi nekkoon bu ñu koy wax jaxate mos nañu ànd Alaaji Golbeen Njaay mii yàlla na ko yàlla yokk ay yàlla na ko yàlla yërëm te jégal ko te xare ko àjjana àndal na fen moom ni day kii mu ne ma kii moo fi teewaloon sëñ Saliou day ñibbi wutal wutal bouteille daf koy yóbbu sëñ bi ndax daf koy faral yittewoo Pape ma di koy waaru toog nanu maintes fois mu ni ma sëñ as soxna asu gaawaan képp ku daan jóge ndar boo jëkk ñëw li may laaj est-ce que indi nga ko si barkeelu barab bi te boo ko xamee dëgg nag bala ngay ñëw daa wut butee yóbbul ko ko soxna soxna fàjjam soxna soxna soxna may nag bu suñu ablaat daf fi ñëw 1900 2000 2014 fii toog bi mu ñëwee man xaw moo ni moom la mu mu def ziaram ba def li yëppam mu noppee ma taax bi da laa bëggoon xam taarix bi ma ne kay nettali di kat nettali jaar ma di koy waal bi mu fi ñëwee ànd ak sëñ baara ba sox soxna may bi nu paree mu ni ma ah soxna may moom ngay wax ne man mii la waaw fii 2014 mu ni ma ne li ngay wax nii lu wér la ndax man boobu tout tànk laa woon te maa ngay fàttaliku kon yëpp day wane ni maanaam barab bi barabu Serigne Touba la barabu barab barabu ñaan la barabu faj aajo waaw te fii rek la sëñ mës a ñëw si naf si bëgg-bëggam fene fu mu mës a ñëw si biir ndax yaakaar naa ni tubaab bi ko fi daan di yóbbu tey moo waral tax xëy na ba tey ba mu doon fu ñuy juróom di fi matale waxtu juróom yi kon loolu daal mooy mooy mooy li nga xam ni daal moom jot nañ ko xam si barab bi te mag ñi nga xam ne nekkoon fi jot nañu ko koy yeggale ñu koy yeggale aussi képp ki nga xam ne ñëw nga fi di ziar. yaakaar naa ni kàddu yi rafet na te wax ji tegu na wax dëgg yàlla ci euh, leeraay boo xam ne macha allah liñ ci mën a yokk rek moom mooy jàpp ni comme ni mu ko waxee bërëb bii ndox mii mag ñi nee nañ fi mu daan jàppe te waxoon ñu fonk ko dañu jàpp ne ndox mi rek xëy na moo yéegaat la mu daan jàpp. moo yéegaat ñu koy barkeeloo nii euh, bokk na ci sëñ ma dikke wadd moomu de ba mu génnee àddina ay mag nettali nañ ni am na kenn ci njabootu sëñ Tuubaa koo xam ni daanu na fa ba mu daanoo dani nee nañ nañ ko sange ndox jàkkay zeng te kon mooy fekk lii nga xam ni moom lañ wax parce que ba ñu ñëwee moom mii moo leen jox ndox mi ñu yóbbu ko sange ko sëñ ma dikke wadd kon zam-zam am na màkka ay nu rahmati am na Tuubaa waaye ndar day sëñ Touba may na leen xéewal gi te yemul kat ci xéewal gi ndax bopp jumaa ji ci penk bi bu ngeen demee di ngeen fi fekk benn tàndarma goo xam ni mag ñi nee nañ jàpp nañ ni sëñ tubaab dafi daan doge koor bu musaana sànni tàndar mooy mu moo nekk ci kanamu jumaa ji ba kenn ñemewu ko dog kon nga xam ni fii kat la mu waxoon bërëb bu sunu borom nu nga samay ñaan la kon képp ku nga xam ne rek yaa ngi ñëw ndar bërëb bii dafa bokk ci bërëbu ñaan yi mi ngi nekk fii ci wetu avenue de ci wetu école bu nekk fii nga xam ni boo nee ana Balakos boo nee jàkkay yi rek ñu ni la jàkka ji nag zeng la woon waaye ku ko gis xam ne loxob sëñ Bàmba dugg na fi kon jàkka ja nekkoon sing ak teen ba nga xam ne daanaka du woon dara ci Zahir moom la murid soytu ba ñu egg fii kon loolu mooy taarix bi kon ci gàttal rek ñu yem foofu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu